si jàmm kay. sa comment. maman la. ah maman naa def. ça va ça va tooga. merci. puissance da daa génn léegi moom sax laa doon xaar fii dañ doon waxtaan léegi mu jóg génn. ça va. ça va bien. yaa ngi si jàmm. yaa ngi si jàmm kay. waaw merci. maa jógee woo fa sori. non non pas tellement. ça va day ça va alhamdulilah. moom da daa génn léegi waaye léegi mu ñëw. ah léegi mu ñëw. léegi mu ñëw. yow c'est comment. maman laa tudd. maman. waaw moom nam nga moom puissance sama dom la ah iya. dégg naa olof njaay naan doom ndeyam da caa dëgër de bu koy nàmpal da koy xool waaye doom it ja ndax liy jom fulaak fayda ci bàyyi ba la koy ndorool ah puissance nag danga ko war wax dëgg de ma sàcc wax la rek di nga di papa moo tax wax waaye boo newul woon kenn ci moom duma la ko wax puissance yi de yokk na loxom dal ba melni kuy dugal crédit fi mu ñi de mom carte bu nekk da koy dugal dal bo bëggé dégg-dëgg ñetti copain la tegee. ah bon. maa la ko wax. ay far. na la ko wax. ñentel bi mënu ma tuddu turam waye ñima xam as neew dina la wax seen tour ok. Omar Koli ben koku man lima gëna metti ci mom xaw sa Rissa fee dëkku ñag yi waay nee fa lañ ko affecté woon te yàlla xam na ne daa diggoon kenn ku mu war a takk noonu foom mu takk bi daw seen jikko baaxul de te nit ki tamit sooy ànd ak moom tamit danga koy xelal si lu baax wax naa ko mu bàyyi ko ba sonn mu ne moom du ko bàyyi sa xarit bàyyi ko ah ma bàyyi ko ci ñoom ñoom moom jubul keneen ki moom sumbukat la moom Lamine Gaye bëri la ci am Lamine Gueye ne moom bi moom daa taw ci téléphone bi nii nii nii. moom Lamine Gueye ah. waaw yow xam nga Lamine Gueye. bu baax du bul dee man ñoom ñooñu sax te ñoom nag trois personnes lañ. Hmm. du xaan rek lañ nekk ci dëkk bi. naa man damaa xamul lu muy bëgganteeg Lamine gaynde ne man hmm. ah lu en tant que subbugatu Gueye ne. Hmm. sumb baaxul. fii laa ànd ak sama benn copin ñu dem sumb ba kajatu bari yow daal nañ toogee jël suñu bay taq di cappa cappal gaynde da ñëw jàpp ñu duma ñoo duma duma duma ba ñuy bëgg a dee xam nga ne kooku tam bu ko takkee tamit da koy dóor rek hmm? gay na njaay baaxul de jaan bi moom waxaale ma ko kobaraa <laughs> kooku nee nañ kobaraa la mosul nekk kobaraa kobaraa moom jaan gi may wax ci moom ak yaw bi moom yow la mom neena na dafa dem fee waaye nu mu sax mission musul dem mission Gambie la dem di garde gay ki jassid bi. ah moom Kabra. man nak gayna gi nak moma ma ci ñoom ay tuuri figurant dal lañu jël tuddi ko seen bop ay tuuri tiwor nga na ñoo ñoon nit sax duñu ko bàyyi waxatuma la nak animo ñoom lañ lay rey ni nga hmm baaxul de. mais yow no def ba xam lool yépp dama koo poursuite dama ko top action xam nga man dama top action damay top action ba jeex. ah, xanaa nga gën see waxtaan ak moom rek. incha allah. Mhm. Lamine Gaynde moom fu mu toj. lu bari de. mu toj moom bariwul. ok yow lan ku si man xaritam laa doomu ndayam sax. waaw ah, doomu ndayam nga di ko seetaan def loolu yëpp. waaw ah, du ma si man gay gay na xam nga dañ lay dem di di la liggéey. ma laaj ko kon ah, ah, ma fi. ñëw sa xarit waxtaanal sama xarit. non sa xarit mu ngi may waxtaanal. waaw sa xarit la. sama xarit baax la waaye. sa xarit bi ah? la. mu ngi may bu baax si jàmm. waaye ça va alhamdulilah. yaa ngi dégg nag chaque jour nag. ma naan Lamine Gaynde Lamine Gaynde Lamine Gaynde nii sama papa ay ñoom Omar Koli ay ñom ko koboraar sama papa ya nga xam maa tippal sama bopp cheikhou yalla yi sama papa yaa ngi nii nga sama papa yaa ngi nii macha allah wañil wax ji wax ji lay suuf xam naa moom lamin ah. ay ñom la ñoom kii xamagul ko koboraar rek ñom amar ko le yoy ki moy lamine ngeen man ko sax ñenn ñi moom dañoo dem mission ñëwaguñu ki nga préparer mariage am la kaat hmm. ah papa loolu du yomb de ah, man ko sa ka mariage am da mel mu ngi préparer benen fi le hmm? deux sakka jaa makka jaa bul laal ki bul laal kii waa gis nga hmm? dafa sa xorom nag. sama xarit la wa. lu hmm. kan am genre xarit yu mel ni yàqkatu der mais kii fen rek la fi nekk depuis bi ma toogee ba léegi. fen kii sa papa Omar Koli day waaj a takk jabar le 2 te sa papa Omar Koli day takk jabar le 4. le 2 papa le 4 ak le 2. man Lamine Gaynde sa far la. Kobra sa la te ñoo ñëpp say papa lan mais puissance yow kañ nga mëna nelawé ni té man ma teg la si loxo yu imagine toi bu ma muy tuddu yenen tour yu bokul ak sa papa yi mu ni ñu say far lan wala benen sa sa mbokk jëkër ñew tok du yaq sa der ah mais ki posen la ki baaxu ci kër. dama yaa waxati lool. mané yaa waxati lool. moo ma la sàkka jaa ma ka ah jaar ci kenn waaye maman jaaral si man ok yow nga ni xam nga Lamine Gaynde ah Lamine Gaynde mi la dóoroon noonu ci simb ba ah waaw du nee nga xam nga ko moom moo ñëwaat tey nekk policier fas yéene laa yóbbu faj la parce que yow téye malade xam nga lan la ñaan kii moom bu fekkee jikkoom bi nga nga xaw la rey moom di ko rey ndax nii la mel mythomane la feebar bu nekk ci moom raison pour laquelle su ma la yóbboo ci roq tëj la fa sept mois soo génnee di nga wér. parce que kii baaxu ci société bi. kii baaxul état bi ah yow yaay laaj ah, ndax état bi reconnaître na ma wala déet. muy ñëpp xam ne dañuy mbubboo ay policier daal. kii am na jom. yow sama man ngay laaj ndax état reconnaître na ma waaw wala déet jàpp si rek jàpp si rek. non kii bàyyil ma yóbbu ko juróom-ñaari. yow tëj si kaso bi non puissance bàyyi ko. eh bu ma fontoo laa la eh, man mën naa yi ah ma fontoo ok. Eh, kii bàyyi ma yóbbu jarul ngay jooy eh, eh jugal non puissance eh jugal eh jugal. sama yoon nekk su jugal laa la wax eh. sur la chaîne L-VISION.